coow li bëri na lool fan yi ci diggante ay taaliba yu bokk ci ay tarixa yu wuute ku ne di diingat sa sëriñu moroom lu ni mel yàgg nañ koy nemmeeku ci réew mi xëy na kay li yokk xar xarmi karaw fan yi mooy plateau yi yenn chaîne de télévision yi di amal ci biir weeru koor gi di waxtaanee mag ñu baax ñooñu le muy lu baax loolu nag ndax mënees na cee jàngee lu bëri ci jëfi gaa yu baax yooyu le bu dee jubluwaayu yooyu le émission jàngale la ak siiwal jëfi gaa yu baax yooyu am na solo lool waaye bu dee wutum xaalis ak propagande lañ ci jublu lajj nañu ndax yóbbe na taalibe yu bëri jàppee émission yooyu ay jongante jëm ci kilifa yi ñuy waxtaanee. yooyu la émission nag kuñ ci waxtaanee sab sëriñ boo xëyee di def say publication ci réseau sociaux yi fëgg sab dënn ak a tagg sab sëriñ loolu nag taalibe bu ne sañees na koo def waaye na yem bañ a gaaruwaale ak sikkal wala suufeel sëriñub jàmbur gëm-gëm daa foor lool ci doomu aadama te ko laal pas-pasam mu gis boppam muy lees war a moytu bu baax a baax ci réew mi ndax la mën a jur ci ay yàq mënee su ko misaal ni ab taalibe sax ndigal la war a jëfee su dee ab taalibeem dëggu na ñaata yoon la ñu dégg kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk tarixa yi di wax ne digaluñ seen benn taalibe ñuy diingat wala ñuy wax lu ñaaw ci tarixa beneen wala ci beneenub sëriñ loolee nag taalibe bu koy def bu ne mën nañoo jàppe ne fonkoo sëb sëriñ ndax jëfe woon ndigalam tekk ku fonkul sëb sëriñ doo fonk sëriñub jàmbur ëppal nag tarixa boo dem bu ne da nga fekk ay taalibe yu ko def ndax duñu def mukk luñ leen sant te luñ leen sant duñ ko jëfee ñooñu nag waruñoo àtte seeni jëf ci tarixa yi ñu bokk ba bu ñu jëfee ñu ne déggal tarixa sàngam lam defati luy yàq nag ku ne war na ko moytu rawatina ab jullit ndax mag ñu baax ñi seen jëf ju rafet ak rataxal seenub diggante lañ mës a doxee ku ne nag sëb sëriñ lam def ci lu baax ak la mu jàngale sañ nga koo waxtaanee fu ne waaye nag nang ca yem te sax soo ca yemoon roy ko wala jëfee ko dootal leneen lu dul jaamu yàlla ak jëf lu baax ngistal gi nag bëri na lool ci émission yooyu le ku ne di jóg di wane ne maa mën jëf nag baax na lool waaye jëf gu nekk na yàlla rek tax